naka soo kay dafa war a soppi nga raaf ak jàmm te nga raaf xam-xam. waaye géwélu Modou Lo bi boo leen paree ngeen may. may géwélu Modou bi boo leen paree ngeen ñëw si ma. Seydi Laye. Seydi Laye. Seydi Laye.

Baye Sall lay doon ah dafa leer gaay wala si xarañ loo bi ah way fan si këram xarañ mag a mag bi baay del waa Jurbel ñu xaar ñoo ngi ñëw ñoo ngi ñëw kay incha allah looy wax waa Jurbel soxna si kii war naa wax waa Jurbel dara de war naa wax waa Jurbel dara de waxuñu lool dañ ne loo wax waa Jurbel lañ la wax parce que